avoir compris aussi que le seul issue du réussite, c'est de travailler et beaucoup travailler. On est au Sénégal et merci d'avoir compris aussi que dëkk bi boo fi nekkee da ngay liggéey lu bëri wax tuuti te lu ne fàng kenn du ko jeex son excellence vous êtes juste formidable vous êtes un formidable père merci